dox di fo wey naa buurante wey naa mooy yàlla wey naa ngir ma dem naa bànneexu wey naa wee xew-xew yi ci ñetti fan yi di njeexital lu am solo ci yoonu murit ak ci àddina bi midaadi wa aqlaami liman sahsahal yama kama sahsaha seytaana wal jahla wal xama mahalla wa an alxa asan xalqu amma معاسي بالباخل لسي ختمتي رما من النار واسيت نقت مسلم دما بربي إلى خدام من هنده الأسماء wala ma war ñoom ñaar ñu lii may wax it sëñ Madou nee na lu ci mu ci xam lu ne sëñ Abdoulaye Diop ko nettali ginnaaw bu mbir yooyu yëpp xewee. ku ñuy wax Baye sëñ njaay ant ñu gën koo xam ci sëñ Ndiaye Kaang wax na ma ne ma keroog bi ma Mouhamadou Moustapha di ñëw gis naa ko maa ngi taxaw mu ngi sol garam bu baxa mag damay nettali sëñ Saliou doom daf may nettali ne ma fekk na boobu am na baa goo xam ne waajaloon na ko ngir dugal ko ci bernde yi da ko jox ngir mu yóbbaale ko ñu boole ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal. ñoo ko déggaale ne sëñ Modou Moussa ba muy dem ñaaxeen. tidóor la xëy jaar nay de. li nekk mooy tubaab yi mas nañu woolu. cheikh moustapha nak ñom jappon nañu ni sëriñ bi te lool même bo demee ci rapport bi ñu ngi koy wax azrailu bayna tarahlu jotna wa yaflu jotna ngir bamba dem waxtu yor yoor jamonoy nawet ñépp xëy tool kër ya wéet àll ni kërim lépp selaw ni sendaw kenn déggul dara lu dul xale yu ndaw sabum picc yuy dal ak naaw ngelaw liy riir ba fa mel ni kuy wax mbaate kuy jottali ay wax jooju ci gox yu fasantikoo mbir yu lëmu te kéemaane di fa bàyyi ko lépp di kumpa ci képp ku mënul dégg jeneeni wax Touba Kaël dimanche ak juróom وليس القديم ولاية لمود باي هل في الورى من زكان المصطفى وليس القديم ولاية لمود باي لي mu ngi xewee diggante fukki waxtu ba fukki waxtu ak benn ci suba وليس القديم ولاية لمود ci dëkkam boobu nag fa la nekk ba yàlla dogal ci bisub dimanche bi jiitu bis bii nuy waxtaan mu war a tolloo ak dimanche fukk ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit 1346 sëriñ Mouhamadul Moustapha bi nga xamee ne xëy nañ ba toog ba def xéewal yéeg wàccaa yu ndekk yépp ba yeggal mu am xalaatu bàyyi ko foofee ci tënk bàyyi ko foofee nag ngir am na yëg-yëg boo xam ne xëy na moo nekk ci moom kenn mu ni tekk am yàgg mu jéggat piliyaan bi mu toogoon jaar ci buntu sarale bi wuti toog kóorub ñambi bu mag bu ne ci gannaaw kër yi mais ba mu àggee ak ratanga fa gu mag mu taxaw ca keppaaru yor yor ba mu jógee sëñ moor jàddam moo jóg topp ci moom sëñ moor jàddam jóg maam yi sëñ mbàkk sonlo moo jóg topp ci moom mais bi mu dikkee sëñ mënu saa wax ni ko moor man de dama jaaxle wax na ni sax daa jëkk boole loxoom yi noonu muy def ci kanam ba boot ko ci gannaawam delloo siwaat ko ni ko moor man de dama amub jaaxle mu ne ko war a jaaxal ah, sëñ ah, am naa lu jaaxal mu ne ko dafa am lu ma wax de ki ma ko wax bu waxee la mu wax garab mu ko dindi loolaay la am ah loolu ko mu ne ko loola nag moo di dañu maa xamal foofu ma ne moom dina ko ne ma bu amee ñeent fukki at dootul mën a amee kilifa fii ci kaw. moo amee ñeent fukki at deetuma am kilifa te sëriñ baa ngi fi. loolu yi de jaaxal na ma te fii ma taxaw di wax ak yow maa sama ñeent fukki ñu tegal ay bis sëñ moor ni ko ah loolu de doy na jaaxle tuuti sëñ bi ni ko baax na ñu dellu mu del si toogaat su yeewi mag ñi ñaanal leen na ngeen sax ci jaamu yàlla ak liggéey te lépp lu ñu leen di tere ngeen moytu ko ba kenn du leen ci seen wax leen ni leen ni dama bëgg a jëm wetti Tuubaa jaaxle jiixi jaaxa tàbbi mbër ma laxas fere ya fëx wër ba tàmbali bàyyi ko foofe dëgmal Tuubaa mu fay jóge itam ànd na ak leen nett ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon ku mel ne sëriñ Mor Jàndam Jóob ca mbooloo ma la bokkoon ak euh, ku ñuy wax sëriñ Codé Niane moom itam ca mbooloo ma la bokkoon ñi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul mustafa woowoon na leen ci bis boobee ak ku ñuy wax sëriñ Serigne Ibrahima la ñett ñooñu la àndal ak chauffeur bi nga xam ne moo doon dawal wata ba ñu di ko wax Serigne Aliou Bey moo ànd ak ñoom jógee foofe ca Touba Kayal fii ci Touba. Touba Soura Touba Tindoodi diggante midi jàpp benn waxtu. bi ñëwee Touba itam jamono yooyu Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi dëkkee Soura man raa muy foofu yi njabootuk sëñ Maxtaar Bintaloo gi dëkkee foofu yi la kër gi nekk jamono yooyu ci Touba ñëwee itam dafa dugg ci biir kër gi rekk génnaat yàggul dara. mu jëlaat oto bi wuti tindoodi bi mu demee Tindodi itam ku ñuy wax bay sëñ Njaay Anta gën koo xam ci sëñ Njaay Kaang wax na ma ne ma keroog bi Cheikh Mouhamadul Moustapha di ñëw gis naa ko maa ngi taxaw mu ngi sol garaam bu baxa sor ay dàll yu puur moom it dafa dugg ci biir kër gi rek daal di génnaat jël oto bi wuti jaar nay de jaar kell la darom yesu sura man raa ak tarba munuko defal mu way usnul maab mbir mo du fofu mu romb kellel jaari ñaaxeel tindoor tindor la xey jaar nay de jaar fi jàll kéeleel diggante benn waxtu ak ñaari waxtu ci bëccëg kéeleel sëriñ Madu Ma Xureeja Jóob moom itam dafa jaar rek romb jàll bi mu jaalee nag dem ñaaxan te ni ma ko dégg ci ci bi may gone walla laa jotoon a dégg moom Ahmadu Ma Xureeja mooy maami Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mooy waajur soxna Fatma ci bu mi jur Serigne Cheikh Ahmadou ma xuréje ñu ni ko dafa dem tool laaj ko ñu ni ko dafa dem tool ñu ni ko ndax ñu wooye ko mu ni du ko mat waaye fa la bind ab bataaxel yónnee ko xëy na ma wàññi ko danaa fi jaar dama jëm nii ci kaw ñuy génn tuuti fa la jullee tisbaar doora jël otoom di wuti dëkkam boobu di ñaaxeen ಭಜನೆ ವೈನಾ ಜಗತ್ತು ವೈನಾ yaa xaj yey naa ngir mbër ma dem naa ñu fa jaaree itam nee na oto bi jàll tuuti mu seen suñu Ablaye Diop si fekk ma fekk ma jógee lew am li ma bëggoon doon ko fi lijjanti si bi ma ñëwee lijjanti bay génn nag tombanteeg waatib sëñ bi di di agsi nee na bi xool geesu gis ma daal di wax safar ma taxaw mu daal di def ni loxoom daal di dem si agsi mu laaj ko ana waa lew na laaj ko itam lu muy dox mu ne ko daam lu mu fi si rek mu wax ko ne ko su fekkee oto bi ndox mi dana ko matadi nga bijjanti ma ñu jëm ñaaxeen sëñ Ablaye na ko dana ko dana ko man mu nekkoon bijjanti ma loolu moo war ñoom ñaar ñu àndi fi ñëw lii may wax it ma Madou nee na lu mu ci xam lu ne sëñ Abdoulaye Diop ko nettali ginnaaw bu mbir yooyu yëpp xewee. ñu déparé foofu wuti ñaaxeen. daaru ñaaxeen ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu. ya ahla ñaaxeen ñaaxu leen Seex Mustafa ñaaxaat na leen bi kalaami soga ñaagi ngaay jurbel leen jarfal la xam Mustafa ñaaxaat na leen bi kalaami soga ñaagi ngaay daaru ñaaxeen daaru ñaaxeen itam ay tool la yoo xamante ne nii maam Cheikh Anta moo ko ko joxoon ci 1922 loolu yabal fa sëñ mat la ñaaxeen wax na ni bi muy dem ñaaxeen la waxoon ak moom ca biir néeg ba waxaat na ak moom ci biir oto bi atom-bomb civil automata, automata hole ñu ngi dox mu waxaat ko wax yooyu wax yooyu si lay jël diggalal gudd yoon fenn ngir njëriñ. bi mu ñëwee itam ba nuyoog njaboot gi. ñëpp xam nañ ci taarix ne waajuram maam Cheikh Anta Mbacke moom mooy ki nga xam ne moo ko joxoon dëkk boobee foofee ba nga xamee dem na fa. fekk na ñoom it nag toll nañ ci di war a bayaat dugub. mu wax ne ay feral la nekk fii comme ni ma ne ko joxe naa la fi ne ko netti mooy taw boobu taw mi ngi fii fi nekk mu ne ku ñuy wax sëñ daam si la ak ku wax sëñ daam booja moo jëkkee seen benn wata bu ndaw boo xam te dafa dugg ci kër gi waaye nag booba ñi mu ko wax sëñ mat si la ndax eh, sëñ mat nangut kuy liggéey di seen dara di ko wax ginnaaw bi ñu bay mu yàggaat ki jar baatam seen ay wata bu ndaw bu ci toppaat mu ne sama nijaay di seen naa wata bu ndaw bu jëm ca kër ga mu ne wata ba ne mu ne ko bu ñuul la de mu ne ko ah, kon de dara la ko ne xanaa kon lool ba mu ko ne xanaa kon loolu dara la dama ko suñ daam boo ñu doon ko ne ah, boobu ko jiitu woon na ko da fekk na boobu bi ko jiitu mooy watab sëñ Abdoulaye Diop na sëñ Abdoulaye Diop Léona itam lii may wax sama bàyyi nee na sëñ Abdoulaye Diop Léona moo ko ko nettali. Euh, waaye loolu bu fekkee ñi nga xam ne ñoo jàpp ne dimanche la jóge woon Touba te jàpp tam ne ci dimanche yooyu la fanaan ñi ñaaxeen bu fekkee ci riwaaya boobu muy solo boobu ci lañ sukkandiku daa ñu gis nekkoon am na ñaari guddi ca ñaaxeen. bi ñëwee it ñu wàcce ñu woy sëñ ci tool bi ñëwee ci gaal bi nuyoo. Seydina Mamadou Moussa moo ko xamal ne ko yéen kat wuti ngeen tundoo di ma bàyyi ko léegi am nawet ndax ñoom dañuy war a bay baxaw sëñ bi fekk fekk na booba ne ci war a bayaat waaye sëñ Mamadou moom ne ko kat damaa jëm njaareem li tax ma jaar fi nag damaa xam ne bu fi jaarut ci yoon yi damaa xamul kañ ma fi mën a gaawatee ñëw moo tax ma jaar waaye njaareem laa jëm léegi sëñ si la wax ko ne ko moo ne kun dimbali woon de eh, fanaan ba suba nee doon sin dimbal mu ne ndax lan mu ne ko damaa woote woon tool bi tama xam buñ defi déggee ñëppay ñëw te kon bi ñëwee liggéey bi dana doon dimbal na teel yegg yàgg daaru ñaaxeen altine fukki fan ak juróom-ñett ci tamxarit diggante 10 heures ba 11 heures ci suba bi bi daataan naaj dara tool bi àgg na mu wax leen ne leen toog leen ko ma dem yëgal ko ki ni liggéeyal ñu wax ko ne ko tool bi da àgg na mu wax ko ne ko na nga dem wax leen nañu daje benn barab bu yaatu toog ma ñëw fekk leen fa ne ma ñëw ne leen kat mi ngi ñëw kon nañu woo ñëpp ñu daje fi benn bërëb ne noonu lañ def ñëpp daje ne la wax leen leen boo xamee ne mu ngi ñëw nag bu kenn demee joxe loxo bu kenn jógit na kenn ñëpp boo fi suuf ba mu ñëw ba toog ba wax li muy wax ba dem kenn ku ne door siggi fa nga toog neen noonu itam lañu def mu ñëw nuyoo sant nu ñaaxaan ju taalibe ni ngeen góor góorlu ci liggéey ak jaamu yàlla ak sax ci ndigal wax ko ba mu yettu yoon daal taal ay loxoom ñu taal mu ñaanal leen بيجبلما زاد سخاني يدنس سرت خديما مصطفى مثل أنس بيجبلما زاد سخاني يدنس سرت خديما مصطفى مثل أنس بلغني وقلت لي حصانا ورثت في من عندني حسانا ورثتني ñu daal di wut kër gi ci altine ji neen tàkkusaan di jot euh, sëñ Madou nee na ma dem yónnee sondeel booba xam nga suñ jamono ji xam ne sëñ Tuubaa liggéeyam bi maase la fépp mel ni àjjana biti foo jaar lamp du jafetul kenn booba sondeel la xew yu rëy yu ñëw naan dañ ko si pot waxa dee fanaane tàkk mu wax ne ma yónnee ci benn pot bu mag mu ñëw jant bi so mu xamal ma ne ma booba ma ñëw mu ne ma na nga feree ne leen kees gi bu ci kenn fanaan na ñëpp fanaan ci penc ma ñi may jàng alxuraan nañ jàng alxuraan ñi may jàng xasaay nañ jàng xasaayit ñi mën a tudd yàlla nañu tudd yàlla waaye kees gi moom bu ci kenn fanaan mu kees gi wër néeg bi mu nekk nee na ma toppatoo loolu bi jant bi soo. daaru ñaaxeen diggante juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti waxtu ci ngoon. bi ma ko ne reer bi noppi na ma dafa ne wool Ablaye Diop te jox ko ko muy sëñ Ablaye Diop mi ma àndale woon Daaru Musti wax sëñ Ablaye ne ko reer bi noppi na mu ne na ñëw. ñu réer ma bi sañ bi teel ma waxaat ne ma wax fere bu kenn fanaan fii nee na ma wax fere yëpp daal di ubbuntu bi daal dikk nee na may bëgg a taal lampe bi mu ne ma lampe mëtt a taal mu ne ma bàyyi lampe bi ngeen di bëgg a ñëw di bunti mu ne bunti mëttawub sëñ booba na sama dina xaw naa rëcc ndax kilifa gu nekk ci néeg ne lampe mëtt a taal bunti mëttawub nee ma daal di génn daal di boof fi bunt bi nee na ma dégg maaji der bi ñu wéekoon ne déedu fi suuf daal ne allah akbar nee na ma dégg ko muy julli di sëlmal di julli sëlmal ba julli la ko soob toog di jàng alxuraan di jàng xam ba gën a def sab sëñ ba ne ma roseet ndànk di fëgg jigéen ñi neen defan ndéegoli ñeen defan ndéegoli bi daataan bi jant bi daataan fenk ndéegoli noppi mu ñëw ndéegoli ndéegoli noppi ne mooy wal Ablaye Diop te jox ko ko ma woo sëñ ma wax ne bii ndéew ko ba noppi ba yattaay nee na ma dikk joxe sëñ Ablaye ci wetu ndi jooram fi nga daam ndànk ne ko fas mu ne ma gees ma ne ko dangaa wax sëñ bi ne ko ginnaaw nit ñi ñu bari xamuñu mi ngi fii te jamono bi dafa métti ci wane métti na ci moom daa bëggoon nga wax ko mu noppalu fii mais sëñ Maodo ne ko gees ne ko lu mu wax mu ne ko ah, waxul dara de xanaa dalaa yërëm ci coono yi rek bëggoon nga noppalu fi dén sëñ Modou Moussa ana wata ba fekk ne wata ba sëñ Maale Saf gi dañ ko daan yóbbu bu jant bi soo buñ demee ñu làq ko foofa mooy ne wata bi ñëw ni ñu daal di indi wata bi dañu daal jël bagage bi di dugal bi ñu bëri nu ñuy génn mu ne ma fi tasu ne maa gaat fi suuf ndànk mu bàyyi ba ñëpp génnee na mu yëkk juróom fukki dërëm ci jamono booba xam naa juróom fukki booba defe naa ak fi nu toolu xaalis bi dana rawante na loolu sutante ci doole ne ko su ma demee nag ma ko yokk ñu Habib Dia waaye na nga ba ma jox ko ba na nga ba ma dem nga door ko jox nee na sëñ bi dem ma daal woo sëñ Habib ne ko sëñ bi moo la jox lii sëñ daal jóg ñu daal di aw yoonu ngembe bi wuti gaawaan Daaru Ñaaxeen talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci tamxarit digënté juroom ñenti waxtu ci suba japp fukki waxtu doomu adama la suñu borom tan def ko khalifam ci suuf terewul mu def ko insaan muy wacc ba suuf mbeur ma jëfëndiko insaaniya ak nité ba mëna wax ak terewul kàdduga dellusi dellu naa ko wéyal njaareem gaawaan diggante fukki waxtu jàpp fukki waxtu ak benn ci suba waaw bâtiment bi yi ñu jàkkaar lool moom ci la sëñ Modou fekkoon maam Cheikh Anta batiment bi itam ab étage la woon ci jamono yooyu ndax commanda bi mu dikkee ci kaw la ne woon moo ko maam Cheikh waaye ginnaaw bi la étage bi daanu. moo tax mu jógewaat foofe mu xëyee fa kon bisu talaata yor yoru talaata yor yor bu xaw a naaj ci la xëyee ñaaxeen wuti njaareem ba mu wutee njaareem itam fii la jaar fekk fi borom gaawaan maam Cheikh Anta Cheikh Anta waxoon sama taw bu baax ba dikk na xam naa ngan gi ma doon dikk tey jii la ko yàlla dogal. fas yéene def ay bernde jàpp ne day yendu waaye xam naa ci biir waxtaan wa mel ni moom itam mu joxe ngànt ne daal du mën a yendu daal bëgg ñu jéggal ko sonn na ci sax moom maam Cheikh Anta bëggoon mu yendu lool ngir ni mu fonke gan waaye sëriñ bi itam ñaan mu jéggal ko ngir mën a yendu mag damay nettali sëñ Saliou doom daf may nettali ne ma fekk na boobu am na baa goo xam ne waajaloon na ko ngir dugal ko ci berle yi da ko jox ngir mu yóbbaale ko ñu boole ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal. ak saakub cere ni ko ginnaaw boo yendu woon danaa la ganale añ baa ngi noonu sëñ Modou door fee bàyyi ko wuti njaareem. yàlla dogal na baa googu sax sëriñ Madou Lamine Touré. dëkkoon ca turan eh, turee ga ca ndulo moom la may baagoo baagoogee yàlla dogal mu wéy yenduwut keroog wax nañu diggante tisbaar ak takkusaan la àgg njaare mooy booba tisbaar weesu na te takkusaan ak séewut boobu lay door a agsi ci buqaatul mubaaraka ci këram googu ci gànnaaru kër njareem talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci tam xaret diggante ñett jàpp ñeenti waxtu. Allahumma

foofii la wàcc dal ci biir kër ga nag ñi dégg ko fa di ñëw di ko siyaare ak di ñëw di ko nemmiku ku mel ne sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana danañ ko ci tudd ne fekk na ko foofee ca kër ga ak sëriñ Maxtaar Silla danañ leen tudd ne fekk nañ ko foofee ca kër ga wax sëriñ Mat Lamin xamal ko itam ne ko sëriñ bi kat fan yi kon dimaas ba léegi daal xamuñ ci moom dara sëñ Modou ni ko waaw baax na naka noonu itam sëñ Maxtaar Silla ñëw na fa moom itam xamal ko daal ni ko sëñ bi daal mat naa nemmiku laaj nañ sax ña nga xam ne ñu féeti foofu ca moom waaye dañ dañoo xam nañu wax barab sàngam na bu juna dugg waaye ba léegi xamuñ ci moom dara de booba ba léegi di moom yënguwul dañ ko ko waxee itam fekk foofee mu toog mbooloo ma bari na mu jàpp loola waaye teewul mu nekk fa di maslaa ak mbooloo mi di waxtaan ak ñoom di waxtaan di waxtaan ba yàlla dogal timis jot. di maslaa ak ñoom ba ca bañ jullee timis ba pare nag sëñ Modou woo sëñ Mad Lamine Diop Dagana woo sëñ Maxtaar Silla léegi ni leen kon bisimilah. bi timis jotee ba ñu julli timis ba yeggal nag da daal di rocc ku ndànk. ci jotaay boobee mu nekkoon ci kërëb goppam ga ànd ak euh, sëriñ Maxtaar Sille moom ma tuddoon léegi ak euh, sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana moomu ak sëriñ Ablaay Jóob Leewna ak sëriñ Cheikh Jóob sëriñ Cheikh Jóob Xari ñëw ci kër gu mag gi seet si sëriñ bi ورزقني digenti خلق امام مالكي عليه الوان waxtu ci ngoon sëñ Modou woo sëñ Mat Lamin Diop Dagana woo sëñ Maxtaar Silla léegi ñu leen kon bismillah jaare ci bunt bi ñuy wax buntub sëñ Masàmba dugg si ca biir kër ga laajee itam fere yi yoroon caabi yi ñu xamal ko ne sëñ Cheikh Fatak ko moo yoroon kees googu mu la woolu ko mu ñëw mu laaj sëñ Cheikh Fatak ko fan la mujj a déggee sëñ bi mu yëngu. mu dikkee ne fu mu ne mu ne mu ne mu bi ànd ak sëñ ma ànd ak juróom ñoom ñi mu séddee kilifteef capitaine toll ñu ba mu jat a jot ah. ca bitti ah. bëgg ñii nag demal ko seetal ko ah. benn buntu desal bu ñëw sëñ ma lamin joom nag moo ko maxtaar si la ñu ngàbb fataxoor maxtaar a ngàbb fataxoor ba bëgg fu ñu dem wala ñu jéem ci buntu nekk danañu nuyoo bañ kenn fayit ñu soog a dem seet bunt bi ne biñ jëkk a jot Moxtaar si la taral sa tafar ba gis ko nga xam ne ñu bi sës bunt bi nga xam ne dara li si ci bitti fekk ko ca rumba Moxtaar jox sëñ Mën Lamin sa tafar ba Moxtaar jox sëñ Mën Lamin sa tafar ba mu seet ko gis ko daal di dellu fii sëñ Modou Diakane moom si xaritam ak Abdoulaye Diop la woon. waaw ndax jëndee kilifa kilifin. ci mm. teggin. waaw ñu dikk wax ko ko bu tegginu. waaw naan la ñoom ñaar man day maa ngi ca biti. waaw ndax booba nekkiwuma ci dara lu mooy ñii li ñuy def kenn waru koo seet. كان ورد سيتنجي أن ما تدم من لجوز هذا ما يعم نكاتك يب لا تلو ñoom xay mag lañu li ñuy def ci seen wërti la bi nga xam ne sëñ mu dem na seet ko bi nga xam ne yegg si nañ ba agsi ci bunt bi itam ni ñu ko xamee bu ñëwee loolu moom mag ñëpp xam nañ ko mooy bu ñëwee itam xaddamiku yëglu na bu ñu nuyoo waaye mel na ni dégguñu kenn ku wax ak ñoom ñu wuy ba ci biir bi ñu wéyee itam ci fi ñu njëkk a jot rek bi ñu ubbee fa la ñu fekk bu baax ci mu tëdd ca melukaan woowee nga xam ne moom lañuy ñuy nettali jëf ñu ciy xóot. sëñ Modou nuyoo kenn fayu ko mu teg loxoom ci jëmm ji bés ndànk. tudd yàlla julli ci yonent bi xam ni la suñ borom digge woon loola mooy liy agsi agsi tey anna kaatiba sinunuufi laa yamuutu abadan wa anna almawta allazi kaana mutawajjihan ilay fi qawli taala kullu nafsin zaa'iqatu almawti kullu nafsin zaa'iqatu almawti am sabaane basiru sañ sañ si xarija li amaloon basiru sañ na ko salal booba nag moom itam mu daal di xam ni léegi li ci des mooy yan bi nga xamante ne ni moom la jàmbaar ji yan woon loolu agsi na tey ci kaw boppam lam ko batale woon muy naa dem Touba te bu xat damm loola daat nay agsi ci waxoon ginnaaw ba mu ànd ak ñoom ba mu demee itam foofu day fu xat fu xaw a jafee waxtaane foo xam ne ba mu demee daal ànd na ak ñoom ba foofa bi ñu yegsee itam la nga xam ne moko war ci ak dëgër moko war ci ak muñ ak ko takku fas taxaw itam lolé mu dal fay taxaw fofé gina bi nga xamé ni xamna ni kat dogal bi ñëw na suñu borom subhanahu wa taala li li la nam ni nga xamné itam non la amé won rek ci sàngam ba di yant bi sallallahu alayhi wa sallam non la yegsee tayit mu ni la ñak non rek lay démé mu taxaw na ci du saytu ak jàppandal mbir mi noné néñu bi nga xamné lolu amna ci la daali lolu Cheikh Fatako Diop nettali na ko ci la daali wo señ Cheikh Xari jang Diop wax ko ne ko demal wol ma basir nee na da ko salal non la ko waxe di wolu señ basir nee na bi mu demee moom sëñ Cheikh Xari señ Cheikh Xari jang da fekk fofé ci señ Basiiru naru gannar bobu nga xamné ne moom wax muhammadat mahmudan at tandaghi Mahmoud nga xam ne kenn la woon ci nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ak sëriñ bi taxawoon ak sëñ Basiiru lool bi mu demee moom la fekk ci moom waaye nee mu fexe ba wax ak sëñ Basiiru ba woo ko daal di ko fay bàyyi bi sëñ Basiiru yegsee tam ci Cheikh Mamadou Moustapha mooy itam nee na ba jot xibaar beeg la ci aju lépp sëñ Basiiru ci boppam moo ko yabalaat ne ko demal wool ma Mahmoudam mu dem woo Mahmoud moomu dinaaru gànnaar boobu ñu waxoon léegi mu ñëw kon loolu itam li ñuy tekki rek mooy moom itam fekk na ko ñëw na bi mu ñëw itam nee na ñoom ñu waxtaan ci lañ war a waxtaan yàlla dogal ndax boobu ñoom ñoo fi ñoo nekkoon foofu jege fa ba ñu waxtaanee itam ba tënk la ñuy tënk nee na yónni na Serigne waxtaan Silla ci Serigne Balla Coro ngir mu xamal ko xam naa li xew ba loolu amee itam. sëñ ball Coro bi nga xamee ne yëg na ko moom ci boppam. wax nañ ne bi ñuy dem sëñ Modou Moussa ak sëñ Balla Coro ñoo ànd dem ci commanda bi. ci biir euh, euh, rapport boobu mu def ci la le 29 juillet aussi ci la xamle ni xew-xew bi ba muy xew kenn fekkiwu ko Cheikh Moustapha moo ñëw fekk suñu borom jëfandikoo la ko soob. ànd na ak sëñ Balla Coro ñëw yëgal ko commandant wala l' administrateur de Diourbel ba ñu ñëw ba fekk sëriñ bi fu mu nekk ba xam ni xew-xew bi am na. nuyu ma Maxtaar Sylla ci sëñ Balla Coro la muy wax ak moom sëñ Balla dem ànd ak maanaam ñëw ñoom ñaar rekk baraad moo doon dawalal boppam dañu ñëwee ñu ubbi leen ñu dugg ca biir. soo ko mënoon gis ko ba xam ne lii moom la doon jéem te mënuñu ca dara. muy tubaab bu ñu wax paal euh, yàggu fa woon. waaye gis na ko teg na ca bëtam xanaa teg na ca bëtam ji tegul bëtam du mën a wax ko dara wax nañu itam àndale nag benn médecin nit ku ñuul. boo xam ne moom lañu indaale ñëwee moo ko seet ba constaté ba wéyal ni kii génn àdduna ndax sëñ bi ni mu daan dundee ak li ko daan dikkal ak génn àddunaam dañ koy confirmer tubaab yi duñ ko mën a gëm rek ci wax nii rek ni kii génn àdduna sëñ du wax commandant bi nag ni ko dama ko yóbbu ci këram ji ci Touba

ki nga xamante ni moo doon le gouverneur bi nekkoon au Sénégal. bi nga xamee ne ñi ngi delluwaat itam nañ foofee la ko Cheikh Moussa waxee ne ko moom kat da koo bëggoon a yóbbu ci dëkkam bi ñuy wax Touba fekk na boobu itam nee na bu ko ko waxee mu ne ko loolu de manu na loolu la ko commandant bi wax ci saa ne ko loolu de dinaa ko yëgal sax samay kilifa waaye war naa mën a nekk yàlla dogal bi nga xamee ne loolu am na mu yëgal ko loolu moom itam mu nangu ko ca saasa. xamal ko sax ne ko nag moom kilifa yi dañ ko yek ndax nangam way nak li tax mu li tax mom maye ko itam neena na xeyna fofu bari wul bariwul jallaw jallaw yëngu bari fa boobu itam gisu fa len dal luy tektal ne dal lu ci mën indi jafé jafé ci bir mbolo ma amna ci lolé itam la Cheikh mohamed mustafa dal tàmbali nak di waccay wala ci aju jarem diggante fukki waxtu jàpp fukki waxtu ak benn ci guddi والأمل بقاء عاشمي من الشمال dogal ba agsi na xibaar ba rot na sëriñ tuubaa ñibbi na njàqare tàbbi na dënn ya rëcc ñépp rët lu kenn mësul xaar lu kenn mësul yaakaar lu kenn mësul xalaat sëriñ tuubaa dem na aljana cheikh mustafaa des fi dékku àdduna wa saydallaahu tabaaraka wa taala أن كاتب عاشر في لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجيا إليه في قلبه سيد بشير واخو نيكو محمد تانداخي ماغا فا نارو غنار لا دي بروم تير وخامتال واخنا ني سيرين بي دنكان وون نانا بوك سي نيكو مودجي سي موم نيكو تاخاو محمد تانداخي بام نيوي اك سيد مدلامين ديوب دغانا نيوم لا سيد مودو واخ ñu waajal ko wàccaay bi muy demee Tuuba moo defee ñu daldi indi auto bi muy chauffeur ba tud dout cisé ñu marque Delaay la yaa Mustafa yaa Basiru yaa man lam njëb dagaa ndax ma dem tan la xëyal ndax yéen Mbàkke ya xari yaay la man wax ma ne dem nañ bat moom tege fenn ba wóor sëriñ bi itam daal di santaan nañu yóbbu ko Cheikh bu Moustapha sant rakkam Cheikh Mamadou Bachir mu jiite yoon wa Cheikh Mamadou Bachir ànd ak ñaar ñooñu nga xam ne ñoom laa waxoon léegi ci ginnaaw muy sëñ Mahmoud ak tandax yi sëñ Basiru ak sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ak sëñ Maxtaar Silla ak sëñ Cheikh Xari ak Mouhamadan Tandax yi juróom ñi la ko sëñ Moussa booleel ak dut Cissé mi nga xamante ni moo doon dawal oto bi ñoom ñoo ko indi Touba. moo moomoon oto ba ñenn ñu wax ni beneen naar bu nekkoon foofu moo moom oto ba waaye li gën a wér daal mooy oto oto bi sëñ Balla Coro woon ak la ci lañ dugal sëriñ bi fekk na borom oto bu mën a xamee dara. ñu yëkkati ñoom ñu yëkkati ko dugal ko ci oto bi juróom-ñett ñoom ñu nag suñu bàll coro ak waa serkal bi ñoo ci dolli ko di fukk képp Abdoulaye Diop lewoon na sëñ sëñ Modou Cheikh Moustapha yónni na ko Darou Mouti ne ko demal jox ko oto ne ko demal jël Thierno mu daje sëñ bi Touba ñëwee ba ak si Touba yónnee nañ ci sëñ Mbacke Bousso yónnee na ci Cheikh Mahamadou Fadil yónnee itam ci mag ñi nga xam ñoo fi nekkoon lu mel ne que fekk na booba Cheikh moom du amit Gueye yónnee nañ ci moom suñ Baara Gueye yónnee nañ ci moom sëñ Manoumbe yónnee nañ ci moom ak ñu mel ne ñu ma wax daal ba lu war a mat ñaar fukk ak juróom-ñett ñu mooy ñi nga xam ne ñoo teewe xew-xew boobu ci bir rapport bi euh, euh, bi xew bi amé le 23 mom l'administrateur de de Diourbel ñëw na Touba doon xol ndax ñom ñi ngi doon tiit ay émeute am murid yi gisatuñu sëñ bi yëngu-yëngu yeeg lañ doon tiit mais néna ba mu ñëwé ak dal la fa fek dañu dal di jëloon ben dogal bop dañu woon murid yi ñëw di ziaré ci barabu sëriñ bi 24 heures lañ leen may ñu def ko euh, Touba kon ci le 23 juillet ci la ñëw xol ba xam ndax lolu ñu waxoon mi ngi nek euh mu gis ni amul benn yëngu-yëngu murid yi ñi nga ànd ak daal ñëw di ziaré ci barabu serigne bi bañ ca tégué ñaari fan la wax ni conseil famille bi ci lañu dajé kon Cheikh mustapha li ñuy wax officiellement ci le 25 juillet 1927 euh, euh, ci la doon xalif général des Mourides wuutu ko tedd ci khadim rasoul Cheikh amadou Bamba ba serigne bi jógee la top waaye. Euh, ni ñu ko officialisé booba tubaab yi ñoo ñu yilif ci le 25 juillet 1927 ci la ñu décidé ngir borom daru Mouteeg ak ñom ñëpp ñu dajé ñu décidé ni Cheikh mustapha moy wutu euh, ku tedd ki khadim rasoul euh, Cheikh Ahmadou Bamba. fofu aussi li tubaab bi tito ndax tubaab bi ci sen rapport waxon nañ ni serigne bi bu fi joggé kenn mënu ko wutu mu melni bo déggé serigne sëriñ ci mars yeb ku tedd ki khadim rasoul Cheikh Ahmadou Bamba. ni mu waxee euh, doon na jafe lool yoonu murit continuer ginnaaw sëriñ bi ndax bi muy martial sëriñ bi moom sëñ Moussa Ka dafa jël jëmmam def ko mu yoonu murit ma ñëw fi jooy jooy wolof mbër ma defar réewi wolof baloo fa seeru am yëf te wootewul fetali sox moo naka mbir yéen ñi di mbër ku mel ni man moo lu ca war gumba gu ndaw lu mot la fel ndey jëne mes lu ngeen ca xam te amagul ku ko womat te xamagul yoon wu jubit ku mënta daw baraw lorit te xel ma dof nopp ya tëx xel may gëlëm di fërfëri rongoñ ya yuur di cër cër yi cër ya ca des di bërbëri di jéem a jëf te ruuga lax saa boo xëyee dëkk mu di jooy mbaa mu yërëm tëlu ba yooy soo ko gisee gët yi xuuy mbaa muy palamtiku lu mu seex kon li tubaab bi doon xalaat am nañu demoon bay dute waaye liir boobee indaale woon laago yooyu yépp Cheikh Moustapha al Karim moo dindi ngumba ga ba muy gis dindi luuga ba muy wax dindi Euh, euh, euh, woppi xel ja ba mu doon nit jar ba ba mu fiy jóge en 1945 liir boobee doon mbër moo xamante ni lamb ju mu dugg upp lamb ja te mooy yoonu mu Cheikh Moustapha des fi dékku àdduna keroog la ko daam fal xut bu muy xalifaam jiital ko ci baatin mu donnu lislaam jag-jaglu wey na taaxati wey na ngir mbër ma dem na am denc wey na am joxe jot na xam jëfe jot na ngir Bamba dem na waree